xibaaru yëglekaay yi ak si saawu ko ni dalli nag jàmm jëlee gi fi Macky Sall bëgg a jëlee poste premier ministre réew mi di Sénégal yëglekaay yi xëy biral ci bëccëg altine ak tey jii Vox Populi yëglekaay la ñuy yër ji mu daal ñu xamal ni rek dialogue bi nga xamante ne Macky Sall nga koy woote mel na ni rek moom Macky Sall mi ngi bëgg a yàq dialogue googee Vox Populi yëglekaay ne yàq dialogue gi weesuwul ngay woote dialogue ba noppi di supprimer lu toll ni poste premier ministre bokkooloo ko ci li nga xamante ni moom nga war a waxtaanee ñi nga bokkal langu politique gi Vox Populi yëglekaay nañu lii de moo war a indil encore Macky Sall ay ay ñàkk déggoog ñi nga xamante ni ñoom lay wooteel dialogue ndax ñoom ñooñu day ñi nga xam ñoom a a euh, ñooy wàkku jégg ci wàllum suppression poste premier ministre day laas nañu Macky dina waxtaan ci lu yàggul dara ñi nga xamante ñoom ñoo di ay alliés rawatina député yi ñu njort ñoo war a wootee nga xam moo di supprimer

gëstu premier ministre ci réew mi di Sénégal bi nañu professeur bi la tey ni gëstu na xool na xeltu na waaye de ba xelom jàppagul ana moo tax ki nga xamante bi rek moo di Macky bëgg fi jëlee poste premier ministre fii ci réew di Sénégal Sud Quotidien yëgle moom daal wax ci dialogue bi nga xamante ni day am nañu si commencé wax ni duñ ci dem ndax dañoo gis ni Macky dafa sincèreul dara xaw ku ci dul dem day waaye Sud nekkoon invité grand jury bu RFM de yi xam ne na ni waa PDS daanu wuyu Macky bu fekkee de yi li tax ñu naan réew mi am na démocratie bëgg nañu daal di ko waxtaanee El Hadj Amadou Sall kàddu yi la yëkkati dénk ko suñuy naatango yi di waa Sud Quotidien samay naatango yi nekk ci la tribune yëglekaay itam mel na ni rek dañoo déglu bi la émission ne PDS de yi xam ne nanu waaw daanu wuyu dialogue Macky bu fekkee teg na ko ci yoon ñu bëgg mu teg ko enquête yëglekaay moom daal di wax rek xamante ni moom moo di wàllum xale yi ñi ne dañ leen di jëlee ci mbedd bi ñu duppee ko enfant de la rue ma kan moo laajut waaye nguur gu Sénégal laaj na fi laaj gu méttee métti ndaxte rek defoon na fi ab bu mag ne dafay jëlee fi ñi nga xam te di tuut tànk yi nekk ci mbedd mi gën di sàkkan fii ci mim réew di Sénégal Le yëglekaay moom daal wax ci leneen rawatina daaka bu Medina Gounass bi nga xamante ni bi rek daal dal njiitu réew Sénégal Macky ni ki démb ci dimanche gi Le Soleil nañu day ñii di waa daaka ba day daal nañu am gan la leen seeti ki nga xamante ni bi rek ba moo di kilifa diine bi nekk foofee rek ci diwaanu Vélingara googee nga xamante ni moo tax ñu woote Daaka day ne ko ne damaa ñëw ngir rek daal di la siyaare waaye itam rek damaa ñëw ngir sàkku ay ñaan ngir réew mi di Sénégal day wéy di nekk si jàmm nekk itam réew bi nga xamante ni bi rek dana naat bu baax a baax waaye itam bi léegi rek ay daal ñu xamante ni rek Macky Sall day daal dina xamle kilifa diine googu nekk fële rek ci diwaanu Medina ni day liggéey gi mu tàmbalee muy rek méngale xar kanam Medina Gounass ak jamono du ci jóg benn yoon jàngeen jëf benn yoon